na mu ci loolu. li na mu ci loolu. ki nga wax moo toog ba mu toogee. nee na kii nga wax ni moo toog ba mu toogee. ak fan ko jaarale. ak fan ko jaarale. ñun ñëpp na ñu gis ko. giiñ ko jaaykatu yàmba. maa ngi nii di ko gisaat ak di ko déggaat bi ñu koy. ko son passeport. nee na retire nañu son passeport. diplomatique diplomatique. ay ay bases yu tuuti. ay xam ne waroon ay nit yaakaar yu ne warul woon a ci ay nit yu ñu yaakaar yi ñu génn réew mi. man tam personnellement. man tam personnellement. ça m'engage que moi. sëriñ bi nee na il engage que lui. nee na propre responsabilité. nee bi mu demee ba dama yaakaaroon ni. dafay xeexal les institutions démocratiques. dafay xeexal les institutions démocratiques. fexe ba fexe ba. fi ñu ko jaarale fi ñu ko jaarale. ni ñu ko bëggee humilier. nee na fexe nag ba loolu dootul am ci mim réew. honnêtement ma je suis déçu. honnêtement je suis déçu. ci ni mu doxale ci ni mu doxale ci nañu doxale moom ña mu àndal. te nañu doxalee moom ña mu àndal. ak fi réew mi tees. fi réew mi tees. fi réew mi tees. Euh, exemple bi ci gën a bi ci gën a bees. nee exemple bi ci gën a bees. te yées ci exemple. nee na te yées ci exemple. waaye di wane en réalité déliquescence bi ne ci réew mi. nee na di wane en réalité. déliquescence déliquescence. bi nekk ci réew mi. nee na keroog ba ñuy xeex ci assemblée. yemul ñuy gàccaal ñu waa nee na ñun la ñuy gàccaal ñun lu ñu metti dañ koy muñ. nee metti dañ koy muñ. suñu làmmiñ lu baax rek moo ci. nee na war a génn. lu baax la ñuy sant. na lu la ci la ñuy nekk. la ñuy santaane ci la ñuy nekk. ñoo xam ne c'est des élus du peuple. nee na ñu xam ne c'est des élus du peuple. kon kenn waxatul wax. nee na kenn waxatul waxi. la représentant la représentation publique et populaire. la représentation publique et les parlementaires. les parlementaires. taxaw ci hémicycle. neen taxaw ci hémicycle bi. di xeex di xeex. ah man de jaaxle. man de jaaxle nag. te nag. te dafa jaadu dafa jaadu woon. sëriñ si sëriñ yi wane ni lii neexu leen. nee na yi wane ni lii neexu leen. doomu soxna yi. doomu xel yu rafet. borom xel yu rafet. ñi mën a bind nañu bind. nee ñi mën a bind nañu bind. ñi mën a wax nañu waaye ñi mën a wax itam nañu wax. nee na ñu dénoncé nag lu mel noonu. mu nee na ba léegi dégg. mu ngi gën a métti. mu koy gën a métti. imaginez leen un seul instant. mais imaginez leen un seul instant. ñun ñu nekk ca mihrab. nee ñu nekk ca mihrab. ñun ñu ñu yaakaaree mihrab. ñi ñu ñu yaakaaree mihrab. ñu ñu desaat ca kanamu ana seen yaakaar ci yàlla. ana seen yaakaar ci fu mu leen di. nee na seen diine ji fu mu leen di fette. imaam yi ñu yaakaaree yàlla. imaam yi ñu yàlla. war ci yoonu yàlla. war ñoo wommat nag teg ñu ci yoonu yàlla. di xuloo na di xuloo nag ca mihraab. juste pour les intérêts matériels. ban bañ effet nag lay am ci c'est exactement la même chose nee na c'est exactement la même chose. kenn dénoncé wu. nee na kenn dénoncé wu. maam Abdoul Aziz bu fi nekkoon dina ko. ko dénoncé. te dénoncé na ko avant muy dem. nee na dénoncé ko nag avant muy dem. yéen ñëpp xam ngeen kaset. yéen ñëpp xam ngeen kaset. ne politique. nee ni. politique la. nee benn benn. wane ne Sénégal politique. mel mu demee du noonu. nee na ni Sénégal politique bi ni mu demee du noonu. wala boog la waaj a la waaj a le les peuples les peuples. ont les gouvernements. le les gouvernements. qui méritent. qui méritent. am ñun dañu mérité loolu moom. ñun am dañoo ah. mérité loolu ñun. yaakaaruma ko yaakaaruma ndax ñun dofuñu ñun dofuñu xel te am nañu xel te am nañu am nañu jomb rus am nañu jomb rus am na ay valeurs yu ñu teg suñu am na ay valeurs yu ñu teg suñu bët ay parlementaire ñu jox leen respect ngir ay parlementaire ñu jox leen respect ngir loolu dajale koppalu réew mi di leen ci fay lu ñu fayul kenn ne dajale koppalu réew mi di leen ci fay lu ñu fayul kenn dafa leen ay avantages matériels yu ñu deful kenn ne dafa leen ay avantages matériels yu ñu deful kenn ngeen di sadd ay loi di ko wéyal te buñ ko wéyalee mënuñ suñu ne sadd ay loi di ko wéyal te buñ ko wéyalee mënuñ ci dara amuñu ngeen ñuy ngeen ñuy fay jukkal lu di xeexante seen. amul lu ngeen ñu fayee njukkal dul xeexante seen. comme des larrons en foire. comme des larrons en foire. mooy lan sàcc yooyu nekk ci njëkk bi. ne kii wuruj fii kii wuruj. ne sàcc yooyu nekk ci wëgg bi njëkk bi njëkk bi. kii wuruj fii kii wuruj ne kii wuruj fii kii wuruj. ñu dajale la ñu ñu dajale la ñu wut. fas yéene wurujante nee na fas yéene wurujante nag seen. nee na on s'appelle des larrons en foire. ce sont des larrons en foire. mais ce sont des larrons en foire. ñu waroon ko dénoncer. ñu waroon ko dénoncer. la société civile. la société civile. les marabouts. les marabouts. la classe politique. la classe politique. parce que une classe politique saine ñu ngi yaakaar ne am na ci. nee na classe politique saine ñu ngi yaakaar. les intellectuels les universitaires les universitaires. les associations les associations. ba léegi dégguma kenn wax. ne ba léegi déggul kenn wax. waxuma kenn waxul de. nee waxul kenn waxul. mais man de dégguma. nee na déggul kenn wax. yaa ngi wax loolu loolu loolu garanti. nee na bu ñu garanti le ci yooyee bokk nga ci ñu koy xeex nee na ñu garanti la li ngay wut ni ko am ci barke Seex Sidi Hajji Maalik ah, li wér te wóor li wér te wóor ne duñu bàyyi réew mi politiciens yi ñu duñu ko def ne jamais de la vie ne ñoo cristalliser l'espoir de ce pays. politiciens yi sa gëmuñu politiciens yi sëriñ si lañ. ne politiciens yi sa gëmuñu politiciens yi sëriñ si lañ. loolu moo la fi indi. loolu moo la fi man sattuma loi. ne satt loi. mënuma laa fal. mun laa fal mënuma laa fal. mun laa fal waaye gis nga ni fii faw nga jaar. waaye gis ngeen ni fii faw nga jaar. na nga jaar canaba. na nga jaar canaba na ngay jaaree feneen. na nga jaaree feneen. parce que kon ñun sëriñ si la gëm gëmuñu. politiciens yi nee na sëriñ si la ñu gëm gëmuñu politiciens yi taxaw ci loolu. na nga ci loolu. ay gone ñu ngi ñu ngi ñaw xalima la. nee na ñu ñaw xalima la. ñu sell xam-xam. nee na ñu sell xam-xam. incha allahu taala incha allahu taala. lii bu dañul xale yooyu ñoo koy dindi. nee na lii bu dañul xale yooyu ñoo koy dindi incha allah. et histoire. <laughs> histoire. dinañu mettre devant nos responsabilités. dinañu mettre devant nos responsabilités. doom ak suñuy sët. nee suñuy doom ak suñuy sët. war a bind ci ñun. war a bind ci ñun. nee na li amoon rek la ñuy wax. koy bàyyi xel toujours yal na yàlla doolu jàpp bi may terminé bi may terminé. Cheikh président Cheikh ne président Cheikh Alassane Nen. dégg na dégg na. ne ce sont les idées qui mènent le monde. waaw mais daal am na benn am na benn citation la ci borom xam-xam yeeg borom xalaat yi. nee ci borom xam-xam yeeg borom xalaat yi. c'est une bonne chose. mais c'est une bonne chose. au-delà la dañ koy waxtaanee dañ koy échanger dañ koy fàttale au-delà des idées président. Uh-huh. ce ne sont pas les idées mais les principes qui moom qui mènent le monde. nee na les principes. justement bëgg le monde à partir des idées moo indi ay ay ay ay clash mm. parce que les idées. mais les idées. ce sont que les la la construction de l'esprit Vous voulez la construction de l'esprit humain. Les, les, les, de la nature. Les principes émanent de la nature. Le principe du bien et du mal. le principe du bien et du mal. nee na jógewul ci sa xel jógewul ci sa xel. soxlawul njàngit pour xam ko. nee na soxlawul njàngit pour xam ko. lu baax wala lu bon. nee na lu baax wala lu bon. soxlawul njàng pour xam ko nee na soxlawul njàng pour xam ko. jógewul ci xelu kenn nee na jógewul ci xelu kenn ci yéen. loolu la ñuy wax alfitra. nee na loolu la ñuy wax alfitra. naturellement. naturellement xam ni lii mooy lu baax. xam ni lii mooy lu baax. xam ni lii mooy lu bon. xam ni lii mooy lu bon. c'est le début de tous les principes. nee c'est le début de tous les principes. gouverne ce monde. mais qui gouverne ce monde. gouverne le monde. mais gouverne le monde. à partir des principes. à partir des principes. et non pas à partir des idées. et non pas à partir des idées. lu am solo lu am solo. yàlla nu ci yàlla jàpp. seen kontaan naa bu baax. mais président Cheikh Alassane kontaan naa bu baax. man je m'appelle El Hadj Malick Sy. mais je m'appelle El Hadj Malick Sy. ñi may seen ma. ñi may seen ma. man du ma génn. mais borom kub du lakk. am na ay rakk. yu ñor am xam-xam am yar am teggin am teggin. nee na man ëpp ma leen xam-xam. nee na gënuma leen a gudd àll wa. nee na jox cër nag parce que maay seen. nee dañ maa jox cër parce que maay seen ma. mu neex leen nag mu naqari leen. nee na mu neex leen mu naqari leen. maay seen ma maay seen ma. maa ngi ci biir kër gi képp koo xam ne. képp koo xam ne. gis nañu nga nar a défendre les valeurs qui fondent ce pays. nee gis nañu nga war a défendre les valeurs. qui fondent ce pays. qui fondent. ce pays ce pays. les fondations. les les les fondations. réew mi nee réew mi ñun. ne dañuy ànd ak yow collaboration ne sans complexe amul ci luñ ci nag amuñu ci luñ ci làq amuñu ci nag luñ ciy rus nous sommes nous sommes pour les démocrates au-delà même des partis mais au-delà même des partis politiques défendons. nee nee nee ñun ñu ñu ñu défendons. Kër El Hadj Malick Kër El Hadj Malick. le jeu le le le. le jeu le jeu démocratique. démocratique moom rek moo ñu yitte. nee moom rek ñu yitte. yàlla na ci yàlla boole. yàlla na ci yàlla boole. am na suñu grand frère. nee am na suñu grand frère. suñuy grand frère suñuy grand frère. bi ñu duggee ci lii. dañu du leen jàppale ngir li ngeen bokk nga. dañ leen di jàppale bu fekkee ni yéen ngeen défendre les mêmes principes. dañ leen di jàppale nag bu fekkee ni yéen ngeen di défendre les mêmes principes. dellu si waat ne li ma lay wax pour dellu si waat ci tànk yi na ci man ne tànk yi na ci man ne cër boo jox ay wajuram ne la ne am na loo ci tudd léegi dama lay fonk ngir loolu ne buñ gisee ni bokk nga ci nit ñooñ ñun dañ lay jàpp ñu nit am na ñu nekk ci suñu gannaaw ni ni ma la waxee léegi rek ne ëpp nu leen xel de gënoon nangu topp ci suñu gannaaw. bu boobaa loolu yëpp. bu boobaa loolu yëpp. dañ koy baaxal ci yow. dañ koy baaxal ci yow. ak ku mel na yow. ak ku mel yàlla ci yegg jàmm yàlla ci yegg jàmm saa. te fekk ko at yu bëree bëri. yàlla fagal nu mag ñi. yàlla ne ñoo indi lii ci mim réew. fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin. yàlla jàppale leen. góor tam góor. góor fit fit. doole yombul doole doole yomb nee na doole yombul suñu sëriñu sëriñ nee suñu sëriñu sëriñ mooy sëriñu mooy sëriñu maam Cheikh Sidi Hadji mooy mujaahidul akbar mooy Cheikh Omar al Fouti yu taal mooy suñu yaakaar ñun nee na góor lu mu ñàkk ñaar moo ko ko xam gàtt tànk ak ñàkk fit nee yàlla yàlla may la sa tànk gudd ngay dem fu am njëriñ ci yow ak ci réew mi yàlla may la fit en réalité nag góor fit nee na doole yëmbul ne salatal